Assalamualaikum wa rahmatullahi taala wa Grup groupe soufisme ak ñu leen di nuyu di leen siyaar di leen balu ak di leen bal ak di nuyu sama serigne serigne mor diouf ñu ngi lay bu baax soxna amé ñu ngi leen di siyaar bu baax waaw di siyaar mbokk yépp rek waaw di nuyu kuluhum rek waaw di nuyu baye malik meng mi ci suuf waaw di rafetlu bërëb bi ni muy doxé wax dëgg yàlla xam-xam mi ngi fiy génne li ngeen fi wàccee rafet na yàlla na yàlla barkeel lépp waaw li ciy njariñ rek mu jariñ képp kuy ku bëgg a jariñu wax dëgg yàlla am na solo am na solo waaw ñu leen di teewlu bopp ba léegi waaye daal li fi wàcc neex na bëri na waaw yàlla may rees ak jàmm rek waaw jërë ngeen jëf ba ci kanam salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu groupe soufisme ak sisme ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax a leen di ziar bu baax baax di baay euh, Baye Modou Wade euh, sëñ Fallou ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax a baax a baax di rafetlu waxtaan wi fi jaar démb lool waxtaan am solo la Baye Modou Wade euh, leeral yi am na solo lool sëñ Fallou toog ñoo ngi lay ziar bu baax a baax a baax waaw Kaaw Moussa boobu sax man démb xam naa fàtte naa parce que damaa nekkoon ci yitte moo tax sax munuma woon naa kii xam nga Moussa boo gisee ñi nga xam ne tey ji li ñuy wax. Euh, nu ko borom ñiy def lasraar waxee mooy adat adat euh, tey ji boo demee sax ci xilmu bi nga xam ne mooy xilmul adat ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy saytu kii boobu danañ xam ne yàlla am na lum jublu ci ci ci xeer woowu jubluwu ci euh, xëy na ñu baree bari niñ koy tekkee comme nga xam ne dañ koy tekkee ci saayir bi rek nga xam ne dañ naan waaw xeer la gis wala nangam mais est yàlla réellement xeer la jublu ci loolu wala dafa am lu muy jàngal Muusa gis nga boo demee ci xilmul adab danga xam ni baat allahu soo ko adatee soixante six la lay jox nga jël aljabal nga adat ko même chiffre bi la lay jox kon yàlla am na lum na ma jàngal Muusa foofu waaye xam-xam dëgg dëgg dëgg boo xam ne maanaam mooy ragal yàlla mooy tax a dem dem dem ba àgg ci loolu loolu nit dañ ko koy xamal mais du loo xam ne dafay toog comme par exemple rek dégg ne arab nii la ko waxee rek mu ñëw daal di ne donc ginnaaw yàlla wax na ko te itam buñ waxee ne Moussa musta gis yàlla mu du gis euh, Moussa maanaam gisul yàlla foofu wala gisu ko feneen sëñ Modou Wade ñëw na ci détail du ma ci ñëwaat mais ñun buñ gisul yàlla fii gisuñu ko fële waaw kon ki jóge ci yonent bi ne yonent bi nga xam ne moo jóge ci yàlla ñëw daan ne kaay leen delluwaat ci seen borom kon kay kon wax dëgg yàlla kon xanaa xanaa xanaa xanaa kon yonent boobu gisut yàlla yonent bi sallallahu alayhi ndax gisut yàlla kon te ñaareel ba bu dee ci logique lañ ko teg waaw ndax nit dana ñëw ne ma kaay wuy sa baay kaay wuy sama baay ma ne ko sa baay anam mu ne ma gisuma ko ndax loolu lu logique la ci xel rek lu logique la wala déet donte lislaam xëy na logique boobu mais xoolal ki nga xam ne moom moo woote kon kon nit ñi nan la ni ràññee ni kàddu gi ci kàddu yàlla la jóge bu fekkee ne yàlla moom mun ñu koo gis mu ñu koo xam lan moonu wéral ni lii ñu yor kon alquran ji ci yàlla la jóge ndax bu boobaa kon xamuñu ko amul kenn koo xam ne kon mën naa xam-xam gu toll ni wax ni alquran ji ci yalla la jóge ndax mom ci bopam mom must am ak rapport ak yalla budé helmu ci xam-xamu hilmu xilmul euh, kalam dongu la ci am yalla kon kay lolu bu boba dañuy wax ni kon ku gëna a xarañ ci xam-xam rek ku gëna a xarañ ci kalam rek yow man nga wax lolu ñaareel ba ci des moy euh, démb dama tewlu euh, ki mais hilmu bini wax ni manam ci jivi la am na ku ma dégg mu wax loolu ma ne ko juif yi boo demee ci ñoom boo gëstoo dëgg-dëgg nga xool ñoom seen xam-xam ba ñuy doxe ak xam-xam bi nga xam ne ne waa ahlu tasawuf moom la ñuy doxee bu boobaa danga nga xam ne xel ni lu wuutee la lu soree sore soree la xëy na nag daa am ñoo xam ne dañu jàpp ni maanam nit ñi defuñu gëstu wala nit ñu ubbeekuwul ubbeeku nan bu baax a baax a baax a baax a baax xilmu bi ñuy wax ni xilmu ci juif la jóge boo xoolee tasawuf yi ñi def tasawuf boobu ñépp ñu ci sukkandiku amul kenn koo xam ne mos naa am rapport ak juif yi amul kenn ku ci musa am rapport ak juif yi xoolal Sénégal daanaka boo xoolee ñi koy wax sax yàlla dafay dogal ba nga xam ne daanaka ñoom seenum njàng duñ génn bërëb ba nekk di dem jàngi feneen te instant bi ñuy wax loolu ñoom daanaka pas-pas boobu instant bi ñu koy doxee daanaka boobu livre yi développé gu développé goo xam ne mën naa dem fépp kon dafa am ñoo xam ne maanaam bu fekkee ne xam nan nan gëstuwaat bu baax a baax a baax a baax a baax di wax ni maa ngi jéglu kàddu yi démb xëy na dama ki ba mën a teewluwaat waaye Cheikh Talib bi am na question yu ma la laaj bi yow bëgg naa ngi ñëwaat ci di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala eh, salaamaaleykum bi ñu ngi lay bu baax eh, ci question yi eh, man dama jàppoon ne comme sëriñ njaay xam nga dafa am fu mu tàmbalee moom ma bëggoon par exemple ñuy déglu audio yépp yi nga xam ne dañuy waxtaan ci tasawuf ñu mën ci am lu ñuy tudde chaine maanaam avancement xam nga alaaji abdoulaye njaay dafa am fu bari fu mu laal te laal na ci si ahmad bamba laal na ci surtout nag laal na ci bu carrément ay njàngale si Ahmad Bamba ci wàllu tasawuf kon léegi su fekkee man dem na di laalaat foofu xam nga day mel ni damay def takraar wala ba ko xanaa bu fekkoon dafa wax ci si Ahmad Bamba loo xam ne man peut-être d'accorduma ci bu boobaa man mën naa joxe sama beneen euh, gis-gis waaye moom fu mu jaar ci lu mu wax ci Cheikh Ahmad Bamba ci wàllu tariqa bi ci wàllu surtout xasaid yooyu nga xam ne am na xisaab euh, xikmi xikami yi ci nekk kon foofu euh, jaratul laal foofu parce que su ko defee day mel ni dañuy baamtu te xam nga temps bi aussi day da ciy joué kon li Abdoulaye Ndiaye non avant Cheikh Alaaji Ndiaye lu mu wax foofu dañ koy jël suñ ko jëlee ñu boole ko euh, li ma wax ñu mën a génne mais foofu euh, pour gàttal ci côté tasawuf ci wàllu suñu maam yi nga xam ne ñoo tas l'islam fii ci Afrique ñun xam nañu ci suñu njàng ne mu tasawifu nay rek ñoom ñoo fi tas l'islam ñoo daan jihad ñoo daan guerre ñoo daan dugg ci ceddo bi e, di wax ak ñoom ñoo daan def itam ay ay keemaan yoo xam ne day jéggi dayoo ñu ñuy woo ci lislaam ba ñooñu mën a barnde li tuddee ñu jamono bi mën a barde ci ñoom ba mën tuub kon ñun e, ci suñu njàng gëm nañu ne mu tasawifu na yi depuis ca yonante bi ba fuñ toll nii ñoom ñooy mujaahiduuna xaqiqiyuuna yi nga xam ne ñoom ñooy tas lislaam boo ñëwee fii ci Sénégal noonu la Cheikh Omar Fouti Cheikh Mouhamad Fadil eh, Cheikh Saad Bou Cheikh eh, Ahmad Bamba Alhaji Malik eh, Cheikh Maba Diakhou ñi nga xam ne ñoom boo leen limee avant ñoom itam ñi fi jëkk muy murabituuna yi xam ngeen Abdullah ibnu Yaasin mu bu mag la woon dafa boo ñëwoon sax ci bu mu taxawale état islamique boobu ku ñëw sax di lay laabal def la daan door junni yar yoo xam ne door bi du metti pour nga nekk koo xam ne kooku laab na ci wàllu lislaam <laughs> kon mu tasawifuuna yi ñoom ñoom ñoo mujaahiduuna yi loolu ngay dégg it ci fatu afriqiya ubbi afriqiya nga xam ne buñ ne afriqiyata ak ta Tunisie la bi fi lislaam duggee ñi àndoon ak uqbatu ibnu naafi mooy eh, wàkkir yonente bi rek abdullah ibnu jaafar ibnu abi taalib bi nga xam ne moom la papaam yonente bi ne day dugg aljana moom presque moom moo daan taxaw moo daan ànd ak gaa di dugg fu ne bay duggal fi lislaam ci jamono uqbatu naa kon mu tasawifuuna yooyu ñooñu ñoo ñi nga xam ne ñoo fi dugal islaam ci ci Sénégal ak Afrique moo xam ci wàllu jihaad la ñoo gënoon jàmbaar moo xam itam ci wàllu waxtaan la wala def ay karama ay jaloori euh, beneen bi ci tegu ci walu tasawuf sallallahu alayhi wa sallam commencé ku ca yonante yàlla Nuux ak Adama ak ah, euh, mbir mi dafa am lu ñuy tuddee terminologie eh, ñun ci terme yi buñ ne tasawuf c'est-à-dire eh, ci wàllu arab baat bi lu lay tekki mais boo demoon ci ti langue mi nga xam ne moom la yonente yàlla Isa doon waxe duñ ko tuddee tasawuf am na beneen euh, turu buñ koy tuddee mooy romain yi ñoom amoon nañu lakk muy rome euh, euh, da ngay ñu ne la paraclite maanaam xettalikat donc mu tasawif mooy ki nga xam ne day xetali nit ñi boo demee lakk bi isa ibnu mariama doon lakk mooy aramiyen loxal aramiya moom la daan lakk ci loxal aramiya ñoom am nañu nu ñu daan tudde euh, isa alayhi salaam ni ko naan yaa ruuxallah ñu daan àndal dañ naan yaa ruuxallah parce que daan def kéemaan yoo xam ne euh, ñu ne kii xett la boo xam ne xetu yàlla la ko mooy ruuxallah c'est-à-dire euh, gisuñ nañu gisuñu papaam gisuñu yaayam te gis nañu mu juddu di dundu te gis nañu itam ba mu juddoo nekk xele di wax ci kaw lal bi nga xam ne yonante yépp eh, dañ daa juddu di wax kon eh, loolu ñoom du julit ñi sax ñoo nangu ne mu tasawif la waaye ñi nga xam ne ñooy buur yi nekkoon Rome ñoo gënoon eh, nangu ne moom ab mutasawif la ndax bëggul nguur te yoroon na loo xam ne su ko utiliser woon bu ko neexee jël nguur gi yàpp comme ni ko yàlla waxee ci alquran wala shaa rabbuka la amana man fil ardi jamian bu seeboon yàlla ñëppay gëm yàlla kon musawif ñoom seen tasawuf dafa am nuñ ko daan tudde waaye ñoom suuf suufiyuuna lañu xaqiqiyuuna nga xam ne ñoom ñooy chefu yonente yi ñooy chefu mutasawifuuna yi parce que dund la du boo xam ne eh, isma ci bari dafay ànd ak isma maanaam boo ci yàggee eh, seytaane ci boppam dootu la mënal dara boo ko fekk mu daw fu fu mu la seeni du taseek yow kon yonente yi nga xam ne ñoom dañ leen isma dañ leen a wottu ñoom ñooy mutasawifu na e, yi léegi nag mutasawifu na yi mooy ci yonante yi mooy muhammad rasulullah salallahu alayhi wa sallam comme ni ko imam ali laajoon mu tontu ko ni ko anta afdalu aw jibril mu ne ko ana afdalu min jibril ni ko ya ali in allaha faddala anbiyaahu ala malaikatihi wa faddalani ala saairi anbiyaihi yàlla daa jël ma yonante yi gënnal hmm. mu jël ma gënnale ma ci yonante yi su ko defee gënnale googu nag li muy tekki mooy muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa tasawufam dafa ñëw muur mbooleem tasawuf nga xam ne ñoo fi nekkoon ñu seey ci biir mu ngi mel ni benn waay bu taaloon sondeel wala lampa pétrole di di di gis di ci gise léegi nag yow nga ñëw nag installel ko courant su ko defee say lampa courant yi bu bu kiyee sondeelam yooyu yëpp day sayti sa lamp mais liñ cay jànge mooy bul jàpp ni sondeel yi amuloon leer mais sondeel yi leer yi leeru sondeel yi day jaxasoog leeru lampa courant yi ba dootoo mun a xamee eh, dara lu dul leer lepp leer la kon ñoom noonu lañ demee asalaamaaleykum beneen yoon waa di nuyu sama sang bi ci suuf sëñ basiru ñu ngi lay nuyu di la siyaar bu baax a baax di rafetlu kàddu yi am na solo sëñ mataar borom tuuru sina ñu ngi lay siyaar bu baax a baax sang yaaram di nuyu ñëpp rek waaw waaw di ci di ci sara rek wax dëgg yàlla wax seen débat bi am na solo waaw li ma ciy sara ndax waa ji dafa ni maanaam boo gisee yàlla rek maanaam di ko wutal jëmm waaw di ko wutal jëmm loolu la waa ji wax te man contraire loolu laa gis ndax dama jàpp ni dama gis ni maanaam ku gisul yàlla xamoo yàlla rek yaa ngi imaginer wala yaa ngi teewal ab jëmm soxol wala yaa ngi koy teewal sa bopp ba booy julli sax yaa ngi am looy teewal waaw te loolu ngay teewal waaw ci sa xel nga ko rek teewal ko waaw kon gis yàlla dafa wér te wóor waaw gis yàlla daal mooy lépp waaw boo gisee yàlla rek waaw wax dëgg yàlla di nga ko jaamu di nga xam fan ngay teg sa jaamu gi waaw kon li fiy wàcc yépp daal am na solo kon ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax waaw àdduna moom noonu la ñii dañuy di gis yàlla ñii di saxal gis yàlla waaw ñii di ko di fii ñii di ko di fële wax dëgg yàlla kon lépp rafet na waaw waaye ñi xam ma xam moom wax dëgg yàlla ñooñu moom duñu di gis yàlla mukk waaw kon àdduna moom noonu la ko yàlla nammee rek waaw kon nañ koy waxtaanee te buñ koy waxtaanee la ciy njariñ rek ku nekk jariñoo ci am na solo xam-xam daal mu ngi ciy génn yàlla na yàlla barke ngeen jëf ama tasawuf nag euh, yeneen euh, nit ñi nga xam ne dañoo génni maanaam ci wàllu njàngu njàng mi nga xam ne mooy njàngu euh, ilahiyaat ñuy tuddee pathologie Eh, wala boog lu ñu tuddee la la philosophie eh, divine maanaam al falsafatullahutiya ñooñu dañoo am seen eh, beneen canal boo xam ne peut-être ñoom mën nañu def dara mais luñ def même jub na baax na mais nag dafa amul fu mu tënku boo jëlee buusa nga xam ne wala confuciose <clears throat> ñooñu nga xam ne ay nit lañu woon waaw gis ne seen yooyu ñuy def eh, ay jikko la yoo xam ne eh, dañ ko jikkoo woon jéem a dëddu population bi di jaamu yàlla ba jaamu yàlla boobu am ay doomu aadama yu leen gis naw leen ci mu ñu woo leen ñu ñëw ñu bokk ak ñoom yenn e, comportement yi jéema def ay institution sociale ak culturelle loolu e, baax na lool mais dafa fekk dafa am luñ jël ci diine yoo xam ne ànd na ak diine Mm, mu leer mais dafa am yoo xam dañ ko jëlaale ci biir te loolu nekkul loo xam ne bon euh, war nañ cee a génne ay résultat officiel bu am légitimité ci diine l'islam jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay sant di la gërëm ndax euh, question yi am na solo lool amaana ci euh, tasawuf nag euh, ñi nga xam ne ñooy comme yonante yi njëkk yooyu ku mel ni ibrahim sayidna musa sayidna isa ba ci sayidna muhammad salawatullahi wasalaamu alaihim ajmain Eh, xam nga comme ni ñu ko waxee tasawuf eh, bu ñëwee ci sayduna ibrahim eh, jëm maanaam comportement buñ ko daan melal mooy alxanafiya alxanafiya mooy dund bi nga xam ne moom lay Seydina Ibrahim dund digganteem ak eh, ay nitam eh, eh, mu xawoon mel ni koo xam ne dafa dal isolé wu bu muy isolé wu aussi weet faralul di di ànd ñoom ndax li ko waral mooy dafa amoon yenn mbir yim daan def ci wàllu seet yàlla ah, convaincre gaa yi ne xërëm yi ñuy jaamu yooyu yëpp diine la boo xam ne c'est pas légitime du diine bu am légitimité donc loolu tax moom mu obligé indi yenn comportement tasa sellal ñu wax mu tasawuf boo xam ne ci lañ jaar ba xam ne moom moo nekk ci dëgg malgré tout ça eh, ñu boole ko ak ñetti téeméeri avocat pour ñu mën koo atteel ñàkk effectivement nam ruud bu muy indee avocat yi dañ koo atteel ñàkk après ñu indil ko pen boo xam ne mooy lakk c'est-à-dire ñoom gis nañu ni moom ci boppam dafa violer loi ci ñoom ci seen diine bi nga xam ne seen gis-gis la kon loolu bu demee bi am eh, ñu indi ko ci safara bi sànni ko foog ne dee na deewut kon mbuubu tasawuf bi ak mbuubu isma bi mooy bi nga xam ne moom moo ko sowe ci kattanu yàlla bu mu fa génnewaatee nag dafa ne inni zahibun ila rabbi sa diin <laughs> gis nga e, demoon le maa ngi ñibbi sama kër boo seetloo ñi ñuy atte ci tribunal ñu am ay problème buñ demee wala police dañuy kii xuloo kenn ku ci ñib si sa kër nooy wax <laughs> man kay ñib si naa sama kër di def foogoon ne bu demee rek tëj ma wala bu kii naan tribunal ay affaire yooyu dina ma yeey ñib si waat naa sama kër de waaye xoolal mu tasawif bi nga xam ne mooy yonente la Ibrahim bi nga xamee ne eh, génniwaat na ci safara bi ñu ko sànni woon dafa ne inni zahibun ila rabbi sayahdini inni zahibun ila rabbi sayahdini kon loolu mooy mbubu tasawuf waaye nag ci jamono boobu dañ koy tuddee alxanafiya moom moo continué rek ba ci muhammad rasulullah mu ne innama buistu bilxanafiyati samha alxanafiyati samha mooy mooy tasawuf rek mooy tasawuf bu fekkee ci suñu euh, langage bi ma ci jamono muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lu moo tax tudde ko aussi tasawuf parce que gis ngeen comportement yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu daan demee ci xaaru xira di xalaat euh, di daan romb gars ni ñuy dam yeeg toppatoo affaire alal ak xam ngeen yàlla lu mu wax li ilaafi qurayshin ilaafihum rihlata shitaa'i wa sayf wal yacbudu rabba haadha al bayt alladi at'amahum min juu'in wa aamanahum min xawf kon ndekkete yàlla ci boppam dafa wax wa quraysh surtout ñu top ci kaw yonente bi dundal tasawuf pour que euh, ñoom ñu xam ne lekk bi ñuy defak naan bi du question que ne commerce bu ñuy yëngatu moo tax waaye lekk bi ak naan bi yàlla leen koy jox kon néegu yàlla bee nañ ko fonk mooy lan nañ topp yorante bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom moo leen mën na tax ñu mën di lekk di naan effectivement euh, yoronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir tasawuf boobu mu daan def di dem ci xaaru Hira foofu la la amee lu am ci wàllu euh, légitimité ñu wax ak tashri jibril fekk ko fa wàcce ci moom alquran ñu defal ko fa benn cérémonie nga xam ne foofu aussi e, dañu def attention pour que nit ñi dañu foog ne am na yu bari ni ñu koy waxe ci wàllu jibril diggante mag yonante bi ay def ko njattak indi kook xoj kook yooyu yëpp e, dafa nekk loo xam ne bon dañu jàngale la yu yàgg yoo xam ne Euh, ñu bari ñoo ko dugal ci lislaam mais yàlla euh, dépassé na foo xam ne euh, yonante bi sallallahu alayhi wa sallam xamuloon ne ab yonant lay doon loolu mën na nekk parce que même ci ñun sax xanaa nit balaa ngay dem ci moom wala wala ngay def de boo koy yónni da nga koy ne ci lii ak lii la lay yónni yonante bi depuis moom leer la woon dafa judd nekk yonant mission bi moo commencé rek ci tara ci quarantième kon foofu ñu bari ci borom xam-xam yi nga xam ne ñoom maîtrise nañu palaas ba dañu ne liñ daan fale rek tey jii président de la république bu faloo dañ ko yóbbu pale eh, kii dañ ko yóbbu mu def eh, prestation serment ñu takkal ko ay médailles yooyu yëpp am na parce que fi nga xam ne foofu lañ daan joxe yonante bi alquran bi du jibril kese moo fa nekkoon eh, isra mikaayil la nga fa woon israfil la nga fa woon ñoom ñëpp ñu nga fa woon ñoo xam ne xam nañu ne e, kenn ku nekk dafa am lu war a def ci yonante bi du question ko ne alquran bi kese la ñëw ne ko iqra e, am na yeneen yoo xam ne ànd na ak moom e, taaj yonante bi def dañ ko kaala <laughs> <laughs> malaayka yi dañ ko kaala ñu ko wàccee alxuraan bi pare dañ ko kaala parce que mooy xaatimul anbiya est ce que jibril day ñëw ñëw rek ne ko iqra bismi rabbika lasi xalaq xalaqal insaan min alaqin iqra wa rabbukal akram wasi alam bil alimun rek dal di départ déedéet am na ay cérémonie cérémonie eh, bi ñu def foofu nga xam ne yi jibril eh, mikail israfil asrail ñeenti malayka yëpp dañoo teew ku ci nekk xamal ko ne jibril xamal ko alxuraan bi israfil xamal ko mm, warsak yeeg yooyu il xamal ko lépp loo xam ne ci fonction la bokk ci àdduna bi asrail xamal ko it eh, ci wàllu nit ñi yëpp nuñ tollu lépp nit ñi ñu toll kenn ku nekk dafa ñëw nga joxe sa mission ci moom foofu ca waaru xira ba lépp mot yonente bi door a ñëw kër gi e, loolu nag parce que ñu bari ñuy nettali ci e, wax yu bi nu mu demee dañu ñëw di wax nit ñi mu njat ko xëcc ko njat ko xëcc ko hmm? yonente bi ni ko ma ana bi qaariin mu ni ko iqra iqra nangam bis ba ñetti yoon loolu yëpp ay ay héritage la yoo xam ne c'est rectificatif parce que ñi ko dugal si l'islam mooy ñoo xam ne rek toujours dañuy bugg jël yonente bi def ko nit au lieu que def ko nit euh, leer mais dañ koy def nit rek pour bona bugg a xam xamal xam a bugg bugg ko wàcce wàcce waayu euh, comme ñoom rek ñu yem loolu nag nekku li nga xam ne ñun di waa école yonante bi waa kër yonante bi duñ nangu loolu parce que xam-xam yi nga xam ne mooy wax na mbir ma deme woon yépp ak diir bañ fa def ak lépp yooyu mu ngi ci amaa nag yeneen tere yi nga xam nag dañuy ñëw indiwuñu xam-xam boobu wala boog eh, dañ ko daan tere ñu génni ko ci jamono moawiya moo tax ñoom ñu ci bari xamuñ ci loolu allahuma salli ala muhammadin wa ali muhammad amma li nga xam ne moo jëm ci wàllu Musa tasawuf ci jamono yonent yàlla Musa boobu dañ koy tuddee rushd rushd boo xam ne njub la boo xam ne daa mot dara manqué wu ci njub moomu nag dafa ànd ak euh, yàlla wattu ki ba dootul mën a def bakkaar seytaane jinne mënalu ko dara soo demee ci téere bu wax sulkul jawahir fi ilmi sarair bu Cheikh Ahmad Bamba radhiyallahu anhu mu ngi ci indi benn qisa boo xam ne yonante yàlla Moussa dafa eh, laaj yàlla maandoom nu muy demee yàlla ne ko lool de dana dana xaw a diis eh, dana xaw a diis ci yow mais da ngay dem ci benn dex am na ñu wax dexu niil la naxru niil nga toog fa xool sama mandute nu muy demee mu yonantee la musa alayhi salaam dal di ñëw toog ci tefes bi benn waay ñëw di wogg fosam dem wad le fa benn mbuusu xaalis bu mu demee rek beneen xele ñëw for mbuus mi dal di dem benn silmaxa nag ñëw toog borom fas bi nag bu mu dellu si waate pour jël si xaalis war si xaalis bi mu fekk fa silmaxa bi mu ne ko sama mbuusu xaalis mo wodd fi gisoo ko silmaxa bi ne ko déedéet rek mu forcé ko ne yaa ko gis jox ma ko dal di ko euh, rey nante yàlla Moussa nag dal di ne ah yàlla day dëgg dëgg na waar yàlla ne ko waaw yow yaa doon laaj sama maandute gis nga borom fas bi def laan liggéeyloo bàyyu xele ba te feyu ko lam ko waroon fay mooy lu toll ni lu nekkoon ca mbuus ma ama silmaxa bi nag moo rey bàyyu borom fas bi moo ko reyoon e, ci yonanteela Moussa nag bi ma demee ba xam loolu dem na ba ci yenn histoire yi xalaat mu ne fii ci àdduna bi daal xanaa ku ko gën xam nga lu tasawuf maanaam ko gën a dund tasawuf comme ni ñu waxee rek ku ko gën a doon ki est ce que mu ngi fi yàlla ne ko waaw am na benn waay boo xam ne mu ngi eh, dëkk ci benn gox de ci suñu suuf si soo demee foofu day am na yenn xam-xamut eh, yoo xam ne day njub moo xam ne mo ngi ci yonent yàlla Musa alaihi salam bu mu ñëwee dafa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma alimta rushda kon rushdu ba léegi ci tasawuf la e, bu ci yonent ya Musa mais nag waa ji yonent yàlla man mangi ngi am teere bi nga xam ne la e, khidr mooy kanak ak ak ak allah buñ amé temps nañ leen andil xedru lan la euh, kan moy papa kan la tombel comme ku melni zil qarnayni ak euh, yan moy jaro jalor yi nga xam def nako mo zil qarnayni jamono yoy yëpp <clears throat> xam ngeen nit ñi dañ daan dund dund bu yagg yagg loolu mu ngi ci kon xidr moomu am na ñu wax xudar way xidr la khidri bil kha al maksur wa bad al maskun wa ra al khidru ni eh, rushdu tasawuf yonante la musa rushdu la tudd kon mën nañoo wax ne eh, yonante la musa yàlla defaloon na ko comme nu ñuy tudde benn sëriñ boo xam ne eh, yàlla ko fa yebbal pour mu gën a yokku xam-xamu tasawuf eh, yàlla dogal nag moo xam fa ñetti secret ñetti lijaasa benn lijaasa bi mooy bi ko waaji bi ko yonte yàlla xidra alayhi salaam waxee ne lu may wax nag lu ma def nag del noppi bi wax la dara kon tasawuf dafa am loo xam ne nit ki du ay critique gis benn sëriñ di def dara rek nga koy critiqué non non loolu bokkul ci luwa tasawuf waaye nag eh, dialogue nag ci la bokk mu tasawif sëriñ day wax loo xam ne taaluba bi dafa ñëw carrément dal di wérante ak moom ci loolu pour que mu jox ko ci ay argument yu leer yooyu de daan am diggante Cheikh Ahmad Tidiane ak eh, ñoom Ali eh, Amasini ñoom Eh, Cheikh Ibnul Arabi Damrawi day am it da daan am diggante sëñ Tuuba ak ñoom sëñ Abdourahman Lo ñoom sëñ ma ñëw Chila ñoo ñëpp nga xam ne ñu ngi daan ñu ngi woon ci école Cheikh Ahmad Bamba kon daawoon na amit diggante imam Ali alayhi salaam ak eh, ñoom Kumayl ibn Abi Ziyad eh, muy ay waxtaan yoo xam ne wax teggin lay doon diggante taalube bi ak sëriñ bi moo tax E, bu mu waxee loolu e, bu ñëwee ba waa ji commencé ci biir géej gi e, lim njëkk a def mooy denk Moussa mu fàtte ko <laughs> denk ko li ñu war a lekk Moussa fàtte ko te en tout cas bu mu koy denk xamoon na dina ko fàtte waaw waaye nag lépp yonanteela Moussa ci tegginam def ko ni rek seytaane moom moo dugg Isa sama xol fekk nag loolu teggin na ndax yonente la maasum la moom itam xam na loolu waaye nag loolu yëpp ci tarbiya la bokk ñëwee nag ci géej ci biir géej gi waa ji kii yonte la xidri commencé yàq bato bi Musa mënatu ko mu ñangi yàq alalu jàmbur parce que Musa xamul lu dul e, léegi nag kii nag am na feneen martaba dimension boo xam ne foofu lay defe mbir mi waaye waxoon na ko lu may def bu ma ci laaj dara <laughs> waaye te te pour tarbiya dafa am lu ci nekk ci loolu la ko waa ji ne ko waxoon naa la ne bu may def bul wax demaate ba mu ñëw fekk xele bi rey ko Musa it dal di xaw a gën a waar lan moo waral lii ñu ne ko am na lu ma la waxoon de mu ne waaye su ma la su ma la laajatee beneen yoon nag mm, nga nga nga dal di def li nga wax ñu tàggali ko ñetteel bi mu ñëwut fekk miir bi mu nga daanu mu tabaxaat ko ba mu baax mu ne ko feyeekul mu ne ko nag fii la ñu yem mais nag fekk wax na ko nag ñetti secret yi nga xam ne moo taxoon mu def loolu kon rushdu boobu lam la yonante yàlla Musa daan sàkku ci moom loo tax moo ne hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda kon tasawuf ci wàllu ci jamono Seydina Musa ak ñim àndaloon yëpp loolu la rushd bu dee nag ci wàllu yahudiya fu ñu toll nii mooy xaaqaam yi rek moom la ñuy tuddee xaaqaam bu demee Jérusalem baytul maqdis ñu nga fa di ñaan di def lu ne loolu lañuy ñuy wax alxaqamaat ma ñi nga dañoo wet di jaamu yalla rek duggu ay xalwa foofu amma bu ñëwee tasawuf nag ci jamono yonante la isa alayhi salaam moom la wax arruhbaniyatu arrahbanatu wal asqafa euh, évêque yi ak euh, monseigneur évêque mooy lu ñu tuddee usquf usquf koo xam ne yow da dem fu sori nga weet dafa jaamu yàlla fekk nag da am ay secret yu bari yoo xam ne fa ngay toog da nga fay am say teranga ndax bu dee sama classe bi nga xam ne dem dem isolé wu dëkk foo xam ne mënuma fexe ba samay lekk indi ma fa yonent eh, sayida mariama salaamullahi alayha ci néegu yàlla bi la nekkoon di liggéey fa Eh, léppam di ko fekk ci biir lekk beeg ndox meeg yépp ba yonent yàlla Zakariya bi nga xam ne bi mu ñëwee gis na ni tasawuf kii tasawuf lay dund maanaam raxabana lay dund su ko defee nag mu laaj ko parce que day fekk na moom fépp lépp palaatu lekk yeeg mu ngi ci biir bu soxlaa lekk mu ñëw bu soxlaa ndox mu ñëw loo tax nag mu laaj ko ne min ay na Laki haza, mu ko min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha eh, ni min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha bi ghayri hisab koy indi kon foofu na martaba boo xam ne fa muy nekk lam soxla fa la koy fekk loolu dafa am solo nak pour nit ki nga yow ab nga ci walu masihiya risalatu isa tashri bi e, weet bi weet bi di jaamu yàlla ñu amal leen tudde leen al ruhbaniyatu ak al asqafa évêque yi ku mel ni e, ñoom Augustinus moom évêque la wa asxaabul kahf aussi ay évêque la ñu woon ay saqifa la que ñoom ay chrétien la ñu woon donc euh, ci jamono buur bi ñuy tuddee Domitian ci romain boo demee ci benn téere bu ñu wax Ar-Ruumaan da nga gis euh, asxaabul kahf asxaabul kahf ñoom mutasawifuuna la ñu woon parce que ñoom euh, jamono buur bi nga xam ne mooy Domitian wala boo demee ci téere bu ñuy wax euh, muruju zahab wa maadinil jawhar ci masudi euh, indi nañu ñooñu buur boobu nga xam ne moom ab Romain la woon di daan jaamu ay tanak ay garab ay xaj lu ne ñoom ñoo daan xeñtu chrétiens yi di leen rey ñooñu nga xam ne ñoo waa asxaabul kahf nag biñ déggee ne buur bi dafay eh, dabbaate képp ku mu xam ne chrétien la mu rey la surtout nag ñi nga xam dañoo toogoon seen ruq yi di ñaan mu gis ni ki ñu war a ñaan mooy ay tànn ak ay yooyu moo tax asxaabul kahfu dem làqu ji foofu ay chrétien la ñu woon mais am tasawifuuna la ñu woon buñ fa làqoo nag fa lañ nekk ba jaamu yàlla seen jaamu yàlla bi ñu daan def foofu am na ay ay xaal luy boo xam ne dikke na leen ba ñoom ci seen bopp ñu far euh, continuer parce que euh, am na li sëriñ Alaji Njaay njoon léegi muy lu am solo hmm, def ko junj rek ñun itam dañ koy junj parce que loolu zawqu la di nekkul loo xam dañuy dem di ko wax ci réseaux sociaux am na fu mu egoon fu ñu eggoon ci baqa euh, fana baqa léegi nag boo demee ba egg ci fana nga def baqa euh, peut-être dematoo ci tamkiin nga da ngay des ci baqa mooy nelew boo xam ni continue comme genre de yeewootuñu mu tax yàlla tudde leen fa amatahu fa amata yàlla bu mu waxee ci azara fa amatahu llahu miata amin suba baasahu ñoom nag eh, wala bisoo comme ni ko alquran waxe wala bisoo fi kahfihim salaasu mi ak ñi wasdaado tis'an kon trois cent neuf ans biñ fa nekkee fekk beneen buur bi nga xam ne moom moo nekkoon buur bu leen daan rey dee na ba yeneeni buur ñëw buur boobu nag eh, dafa am benn gent boo xam ne gentoon na ko eh, yaayam moo ko gent wax ko muy Constantine Constantine mooy kii ñu tudde tey Istanbul Constantine ci Turquie moom yaayam moom mooy kilo Cléopatra gis ay sénégalais yoo xam ne sax ci wàllu aar dañuy dañuy tuddee ay tur ba pare eh, indi patra peut xamuñu histoire boobu mais Cléopatra mu nekkoon yaayu buuru romain yi Constantine moom moo gëntoon gis Isa alayhi salaam ak Mariama léegi ñu jox ko benn croix rouge muy salib ne ko lii boo ko defee ci daraapo bi da nga xeex bi boobu grec eh, romain yi ñoom dañ daan xeex ak grec yi eh, yàlla dogal yaay ji woo Constantine moom Cléopâtre woo Constantine wax ko ko bi ko Constantine bu mu ko waxee nag Constantine defar daraapo def ci biir croix bi ñoom ñu dem gañe grec yi léegi nag ci la Constantine diine bi ban diine la ñu ne ko diine isa ruhullah mu ne léegi wóoral leen ma képp koo xam ne ci biir diine bi la nekk ci ci diine isa ibnu mariama la nekk chrétien ngeen indi ko ma teral leen ci la gaa yi commencé nag di wër képp kuy chrétien rek borom xam-xam ñu dem jëli ki ñuy wax liqinios liqinios nag moom moo coordonné woon li nga xam ne mooy majma première majma bi ñu def maanaam seen jeetaay yooyu ñu njëkk a def ci isla ci ci wàllu christianisme kongore boobu nga xam ne pour ñu xool mbooleem képp koo xam ne ab chrétien nga ci biir empire eh, bi ci lañu tase ak waa ashabul kahfu fekk ñoom dëkki nañu ba pare ba ñoom kenn ci di dox ci ci mbedd mi mais buñ ko gisee xam na ne kii eh, bokkul ak ñoom dund tasawuf bi daan dund euh, bokkul tasawuf bi daan dund bokkul ak euh, dund bi nga xam ne moom la xamoon ci waa romain yi looloo tax ñoom bu ñëwee ñu defal leen ay musée ay affaire wu église ay yooyu tabax leen ko pour ñuy jaamu yàlla am na ñu wax ne nag dañoo dëkkiwaat de waaye am na ñu wax ne aussi euh, dundaat nañu essentiel foofu tasawuf moom lañ daan dund eh, bi Licinius moo tëgg loi canonisation bi nga xam ne mooy loi christianisme parce que moom la Constantine mujje appliqué eh, accordé ko ratifié ko pour mu nekk loo xam ne dañ ko el di doxal ci nguuru mbooleem réew romain bi fu mu toll loolu moo indi canonisation euh, def république euh, chrétien dawla al masihiya kon euh, foofu itam la ñooñu commencé di am ay évêque ñu wax usquf ñuy topp yene taalibe Isa yi dem ci al bi dund fa comme Oristinos comme matière ñom ñep ci afrique lañ ñu ci bari afrique lañ afrique la dee muy maté office ophistunas ñi daan dund ci afrique euh, occidentale afrique du nord yoy yep lool mom moy euh, tasawuf kon rahbana wala asqafa euh, lañ koy tuddé ci jamono isa jarajef sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la sant bu eh, eh, baax ci question boobu yonante ya, bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gisul yàlla gisul yàlla eh, te du ko mos a gis mukk comme ni nga xam ne noonu la wax moom ak itam noonu la alquran wax alquran def la ne la tudrikuhu labsaru wa huwa yudriku labsara hmm. hmm. wa huwa latiful habir yàlla nee ne e, e, bët du ko mos a gis doo ko mos a teg bët waaye moom day gis ñëpp moo mooy borom kumpa mooy ku lewet ku yewent léegi nag beneen aaya bi mooy ci musa boobu lan tara nii la ko yàlla wax doo ma mos a gis kon lan xarful istiqbal la eh, aljabal soixante six la comme ni nga ko waxe eh, ture allah soixante six soixante six boobu boole ñaari siis muy douze loolu muy tekki mooy bu fekkee ci adat bi nga xam ne moom nga bugg a indi mooy imaam ak ñaar yi nga xam ne moo commencé imaam ali ba ci imaam al mahdi beneen bi ci tegu mooy euh, yonente bi sallallahu alayhi wa bu mu ñëwee wax ñu ne nañ dellu ci yàlla tekkiwul ne ab palaas la boo xam ne daf ñuy womat rek ñu dem mel ni danga nga nekkaay leen ñu dem pale ñu dem gisi président de la république waaye mu ngi mel ni nga ne dellu leen ci njub njub gis yàlla mu ne wa anibu ilallahi mooy dellu leen ci topp yàlla bi yow delloosil sa xel ndax xel mi bu dellusee danga koy gis déedéet maanawiyaat dafa am xisiyaat am yàlla dellu yàlla dellu maanawi la du xisi maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa alihi def la bi ma riñaane baat bi lay dégg may teg mm. baat mm. waaye gisuma sama boroom baat boobu moo ko doon wax li muy wax li muy dëgg waaye du question borom gis yàlla moom duñ ko mos a gis kenn ku nekk soo yebboo génni ko ci sa xel ndax bés boo ko defee kon yow da nga def yàlla moroom ndax dina nekk dara loo xam ne danga koy gis te lépp loo xam ne gis nga ko rek bu yàggee dootoo ko ragal moo tax benn waaye dafa ñëw ci imaam eh, imaam yi am nañuy wax imaam ali rida ñi imaam jaafar sadiq am ñu bari daal ñu ne ko mu ne ko yow nit ñi li ñuy wax ci sa maam mu ne gis na yàlla mu ne ko ñan nit mu ne ah noonu la ñuy wax ne ne yonante bi sa maam bu mu riñaane dafa gis yàlla mu ne ko gisu ko de mu ne ah lu tax nga wax loolu mu ne ko ah, yow yo xanaa du yonante bi moo moo indi alxuraan bu wax ne laa tudrikuhul absaar waxu yudrikul absaar mu ne waaw mu ne léegi mu waxaat ne lanta lantarani mu ne waaw mu ne léegi nan la yonante bi ñëw wax ne yàlla kenn du ko gis ba pare mu walbatiku ne gis nañ ko mu ne ko Eh, ci soratu mi dañu ne ma kasabal fuaadu maa raa xol ba weddiwul lam gis mu ne ko maasa raa lan la gis mu ne ci dafa ne walla qad min ayati rabbihil kubra gis na ci keemaan yu yàlla yu mag a mag yi mu ne ko hal ayatu rabbihil kubra huwa rabbuhu ndax kemaanu yàlla moo yàlla mu ne déedéet mu ne kon jàppal ne kéemaanu yàlla la gis te gisu ko lépp min la wax kon gis gisul yàlla beneen kii boo demee ci tere bu ñuy wax ilalu shara'i lépp sharia bu yàlla mosa a tegg ci kaw suuf rek lu ko tax danga gis foofu dañ lay ne yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa bu mu riñaanee biñ koy jàngal julli te julli ñaari rakka rek la woon jibril wax ko yonante bi julli ñaari rakka bu mu ñëwaatee ci riñaan bi ci la dolli e, ci tisbaar e, ñaari rakka fajar moom de ko bay rek ñaari rakka mu dolli ci tisbaar ñaari rakka dolli ci takkusaan ñaari rakka timis mu dolli ci benn rakka pour e, gërëm yàlla ci Sayida Fatimata Zahra bi nga xam ne moom moo wottu leeru yonante bi sallallahu alayhi wa moo tax timis kenn du ko wañ gée mu dolli ci ñaari rakka loolu tax ci sharia islamiya bu fekkee tukki woo bu waxtu julli jotee nga julli ñeenti rakka tisbaan ñeenti rakka takkusaan timis ñetti rakka boo tukkiwul yëpp ndax kenn du ko wañ gée boo tukkiwul euh, ñeenti rakka bu fekkee euh, fajar moom mooy cosaan bi muy ñaar fekkee da nga tukki nag nga teggi ñaari rakka yi nga xam ne moom la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yokk kon nii e, mooy protocole bi nga xam ne bu ko yonante bi defee ba pare deuxième riñaan bi nga xam ne yonante bi riñaan na riñaan yu bari foofu la e, e, yàlla def ratification bi muy musaadaqa ànd ak yeneen muy muy muy muy fukki rakk ak juróom-ñaar ak yeneeni naafila yu muy àndal di fanweeri rakk ak ñeent muy lu ñuy tudde salaatu uh, xamsiin waxit bu xamsiin képp ku ko julli am nga tiyaaba juróom fukki julli ci bés bi kon lii bu mu xewee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne moom def daan dégg ay baat rek waaye gisul yàlla baat rek la daan dégg kon yàlla kenn du ko gis ci àdduna kenn du ko gis ci alaaxira mooy yàlla dellu ci yàlla nag tekkiwul dellu xis maanaam loo xam da ngay dem ne jàkk gis ko mu ngi mel ni nga ne dellul ci sa xel bi boo delee ci sa xel doo gis fenn la sa xel nekk dellul ci diine bi diine lislaam diine lislaam du loo xam ne da ngay ne jàkk nga ne lee diine lislaam ay pratique la dellul ci sa njub bi nga nekkoon njub bi loo xam ne danga koy teg bët lépp loo xam ne maanawiyaat la am nañu ci majaas ñu wax ko mais loolu tekkiwul ne hmm, hmm. li nga xam ne nag moom la ñuy tuumal ne imaam Ali dafa benn waaye dafa ñëw ne ko ndax dangay gis yàlla mu ne ndax danaa gis danaa jaamu ku ma gisul eh, yooyu yeneeni borom ay nit ñoo ko dugal pour euh, bugg tafu ci waa kër bi ci wàllu gis yàlla mais imaam ali dafa ne eh, laa tudraku bil absaaru lakin yura bi aqiqati al al al qulub dafay yëgg dañ koy yëgg tajaliyaat mooy yëgg comme ku tiit dafa am ay jëf yoo xam ne ci xol lay jóge tiit ci la bokk yëgg ci la bokk loolu mooy yëgg waaye du question gis ak bot li day moy li nga xamne rek mom la bëggoon participer ci tontu question bi allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammad jëf señ bi ñu ngi lay sant di la gërëm bu baaxa baax mais eh, ci gis yalla bi nga wax ni xam nga ñun ci l'islam dafa am fu ñu tenku ne nañ fa tenku muy alquran ak sunnah alquran mooy lan mooy waxu yàlla bi nga xam ne am na ci loo xam ne alquran ci boppam moo koy firi am na loo xam ne e, yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak njabootam ñoo koy firi ci biir alquran lépp amul fenn fenn fenn fenn foo xam ne gis yàlla mu ngi ci mu ngi ci buñ demee ci aaya yi nga xam ne ñooy wax ne yàlla kenn du ko gis bari na ci benn ci ayam Muusa boobu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi nga xam ne moo indi alquran bi te ñun mënuñoo juyoo ak moom parce que buñ juyoo ak moom dootuñ doon ay julit moom nee na gisul yàlla dafa daan dégg ay baat ci yooyu xew kon yooyu yëpp ci wàllu tasawuf loolu yooyu yëpp nga xam ne dafa xew tekkiwul ne yàlla dafa teew maanaam jaxran ñu koy gis ci ay bët amaa nag am na ay visibilité yu fi nekk ñu bëri euh, euh, képp koo xam ne parce que il faut que nag fii ma ñëw leeral fi bu baax a baax a baax euh, ismullahil azam bu fekkee ci école ahlu sunna wal jamaa man ci école ahlul bayt la bokk fa la nekk mais école ahlu sunna wal jamaa ñoom dañoo am seeni xeet bi nga xam ne dañ koy indee te itam ci ahlul yi ñi nga xam ne ci famille hasaniya e, bokk ci tariqa qadiriya ak tariqa naqshabandiya ñooñu ci seen bopp ñoom ñoo sedd yeneeni tariqa yi seen xeetu xaloo yi te ñoom itam ñu ngi ko jële ci ahlul bayt dafa am rekk tuuti ay modification yuñ ci def su ko defee foofu la bugg a dugg xalwa ñetti façon la mooy dawatun suxra nga xam ne benn guddi ngay def genn am da dawatun wusta nga xam ne ñetti guddi ngay def genn am dawatun kubra nga xam ne juróom-ñaari fan yi yëpp ngay def ci biir yooyu képp koo xam ne yaa ngi nekk di dund tasawuf eh, am na boo ne ci am yoo xam ne boo déparé lépp ci mbiru saytaane la kuréelu saytaane ñooy njëkk a ñëw di la jox ay promesse léeg-léeg ñu ñëw indi la or teggal la léeg-léeg ñu indi ñëw ni la man maay yàlla léeg-léeg ñu ñëw ne la man nangam lii ay façon yu nekk eh, ci ñiy def xalwa xam nañu ne lii may wax ku ko mos a def rek xam nga eh, lan lii ma lay wax mooy lan dangay dugg xalwa di sikkar di ñaan yàlla ba mu yàgg benn mbindeefu yàlla ñëw indil la lu tollu nit paanu or wala paanu jama tegal la ko léeg mu ñëw ne la tey nguuru àdduna bi yëpp mën naa la ko jox tegal la léeg mu indi la alal guddul jeex pour que ne yow doo continuer sa ñaan bi ngay def am na ñoo xam ne nag ci biir loolu buñ ko gisee te mosuñoo def xalwa xamuñu luy xalwa wala boog seen sëriñ ya di jox ay wirdu xamuñu xalwa xamuñu yàlla xamuñu yooyu <coughs> foofu la ñuy yem rek affaire yooyu dal ko jëfalante ak moom baare ko pour leeru yàlla bi mu egg si e, loolu nag mooy waral ñu bari bu ñu leen joxe yenn wirdu yi pour ñu dugg xalwa léeg-léeg ñu tase yenn mbindeef yoo xam ne ci kuréelu seytaane lay bokk moo leen dingam ñi ñëw ne leen man yàlla la wala ñi ne leen man malaaka diw la ñu ne leen man nangam la ñu ne ma leen may yonante diw ñu ne ma leen may sëriñ diw loolu yëpp ay yëfu caaxaan la e, xalwa dafa am yoon am leer leer bi nag yow bu fekkee ne danga nga bëgg a egg foofa ci waa tasawifu nay da egg jaar fi nga xam ne foofu la ngay jaar bokk na ci sax am na ñoo xam ne pour reeral nit ñi sax bàyyiloon nañu yenn nit ñi tariq eh, yu nekk ci tariqa wàllu xalwa te fekk ñoom ñëpp dañ daan xalwa par exemple Cheikh Ahmad Tidiane Chérif dafa daan dugg xalwa yu mag mag man maa ngi yore ay téereem yoo xam ne bu mu duggee xalwa ba génn la ko bind daaw doon génn ci xalwa ñi am na ñoo xam ne dañuy bind bi laa xalwatin rabba wa rabbat wa rabbaw bi xalwatin fashatana ma baynal ya ya yazidin wa mara ma xam ni mu ko waxee loolu yëpp day nekk ay reeral nit gis nga yàlla bala ngay egg euh, ci tasawuf dëgg dëgg dëgg yooyu yëpp day jaar ci yow nga gis ko waaye taxu taxulaa jóg ay tegal la ay baatu or walla naan la ay ay ay ay paquetu or ci sa xalwa wala ñëw di la naan nit ñi ñëpp dinañ la topp yooyu du mbir mi du foofu wala ñëw di la naan ma yàlla wala nga gis ay mbideef yow mos dëgg gis ci àdduna foog ne yàlla la loolu yeb ay du du yoon bi du foofu yoon bi du foofu yooyu da nga koy jàll continuer ba ba nga xam ne yow mbir ma te du ma réseaux sociaux da ngay continuer loolu yépp nga bàyyi ko continuer sa isikar bu fekkee am nga sëriñ bu la mën a guider ba ba ngay ne cip ca leer ba leer ba yow yépp amu ca kun fa ya kun la mu jeex waaye du question ko de jàkkaarloog yàlla foofu déedéet allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Cheikh bu Lo ñoo ngi lay ziar bu baax baax baax di rafetlu kàddu yi bu baax te te di wax ne dégg nañ wax ji waaw mu mel ni mu mel ni tontu nga ci benn laaj bi mais beneen laaj bi nga xam ne moom laa doon laaj te mu gën maa ñori maanaam booba tontu woo ci maanaam yéen noo leen gisee ni yonent bi sallallahu alayhi wa ndax ginnaaw bi mu fi jógee ndax nit mën na koo gisaat wala déet yéen loolu ci boppam loolu posé naa la ci question pour laaj ba xam yéen chiit yi ndax yéen noonu jàpp ngeen nit loolu lu mën a nekk la wala déet amaa li nga xam ne moom nga wax ci am maanaawi yu xam nga boo demee ci ahlu tasawuf euh, nit da ciy dox ci ay étapes yoo xam ne yu baree baree bare gis nga nit ki nga xam ne dañ koy jàngal ci tasawuf euh, amuk maanaawi yu googu ngay wax ni maanaam yu baree bari ci maanaa leen koy jaarale maanaam kooku ki nga xam ne da nga koy jàngal fikru nan la ñuy xalaate ci yàlla nan na ñuy ci maanaawi yu nga koy jaare di ko jaare ba mu am aqiqa dëgg dëgg dëgg dëgg ba ba nga xam ne day dema dema dem ba mu wér ko dootul nekk fi di di di di am ilmul mais ilmul yaqin day am Mm, nga xam ne day day dem a dem dem ba yu bëree bare bëri da koy mën a gis yu bëree bëri kas fu lay doon ci moom boo xam ne dootul nekk loo xam ne lu ko ump lay doon waaw léegi nag ak xabo boo ca demee boo ca àggee dëgg-dëgg da nga xam ne nit ki day mujj yàgg day transformé wu comme ni ko suñu borom doon waxee eh, comme ni koy waxee ci addis ni maanaam nit ki day dem ba nga xam ne eh, maanaam loxoom yàlla day mujj yàgg loxo bi muy wax eh, loxo bi muy jàppee loxo bi muy wax eh, kàddu gi muy waxee bët yi muy xoole ba lépp lépp mu ngo ñaanee yàlla may ko nit ki day dem ma dem ba foofu loolu nag maanaam aqiqa la boo xam ne ñi dox ci tasawuf dëgg-dëgg xam nan li may bëgg a wax mooy la mooy lan waaw loolu daal xam naa ne moom boo leen euh, laa xam ne mën naa la ko ci kii te boo ma ñëwaloon ci question boobu ma lay posé ci yonent bi dana dana ma dana ma amal solo lool lool jaajëf. salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay ñu nuyu bu baax kenn ku nekk ci sa tur sa sant dégg naa sa question bi. xam nga comme ni ma la ko mën a waxee rek euh, gis yonante bi ginnaaw boobu génne àdduna moom loolu lu la ci yàlla te ñun itam gëm nañu ne lu mën a am la ndax euh, même ci ahlu su nawal jamaa euh, ñoom dañuy wax ci yenn hadiis ñuy wax ne yonent bi dafa ñaan yaayam sayda aminata ak papaam sayda abdullah ridwanullahi alayhima jóg nañu tuubaat jëblu ci mom daldi di sen euh sen armeel kon mo wone ne moom mu ngi daan dund ñom ñu ngi dee nañuy jógaat mu gis leen bu euh version bobu weer ci ahlus sunna wal jamaa kon eh, waye itam dañuy xol euh nga xam ne yàlla ko téeméeri at mu dekkilaat ko nit ñi di ko gisaat donc loolu yëpp waa asxaabul kahfi aussi comme niñ ko waxee rek tee nañu am ñetti téeméeri at ak lu teg terewul gaa yi gisaat ko gisaat leen donc loolu moom lu mën a nekk la ci wàllu suluk ci wallu yàqin en même temps biologiquement sax euh, bu fekkee comme niñ ko waxee dama lay xamalit na Chia ñoom ay imaam ya ñoom bari nañu ay borom xam-xam yoo xam ne léeg ah, ñoom ñu wuute ci benn thème ku mel ni eh, ru mum imkaanu ru'yatu rasul ba adal mawt maanaam ndax dana jàppandi gisaat yonante bi ginnaaw bu mu génne àdduna mais loolu dafa am ay conséquences yi koy indi mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am fi ay représentants yoo xam ne ñoom ginnaaw moom ñoo ngi fi bési imam euh, Mahdi euh, ñun ci suñu gis-gis mooy képp koo xam ne yow da am lu mel ni wirdu lu mel ni lépp lu jëm ci wàllu tasawuf loo ci mën a am dam pour ñun imam Mahdi mooy ki nga xam ne moom moom moo fi nekk di dund mooy ki nga xam ne moo koy joxale yoon joxalal yonante bi eh, góor yàlla bi nga xam ne moom moo am loolu donc xaqiqa muhammadiya ci imam Mahdi la nekk eh, amaa nag eh, lu mel noonu am nag mu am koo xam ne dafa nekk gis naa yonante bi anam yi mu koy gis du doon ci mu wàllu service maanaam kon ma la ko mën a wax rek bu weer dee yow doo dem ca pale ba ne Macky Sall ma mais dangay ngay dem euh, trésor public wala nga dem fi nga xam ne foofu lañ lay envoyé sa pay kon Imam Mahdi bu fekkee lépp lu dem ci wàllu tasawuf euh, moom moo fi nekkal yonante bi actuellement di dund moo koy joxe Euh, yeneen nag yoo xam ne xanaa yeneen it jagleel lañu wala nga gëm ne loolu mën na am loolu moom lu mën a am la comme ni ma la ko mën a waxee rek comme yonante bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ñaan na yàlla Abdoulaye ak Amina jëw jébbalu tuub delluwaat ci seen xab allahumma salli ala muhammadin wa jërëjëf sang yaaram lay ziar bu wér di la màggal di la tatagal di la jox sa wàccuwaay Cheikh bu ya di am mbégte ak kontante bu baax a baax a baax a baax a baax euh, ci dégg la ci daara ji euh, di la nuyu tamit di jël nuyoo di ko teg sa loxo ngir nga jotale ñu ko mboolem képp koo xam ne yàlla atte na mu nekk ci daara ji di soufisme et schisme euh, mu mel ni lekk kàddu nga xam ne yàlla atte woon na démb ma laajoon la ko mu mel ni tontu bi am nañ ci lu kawe suñu ndax xame nañ ci lu xamutoon dégge ci lu déggutoon waaye day mel ni loolu ñuy wax ni yégalum yégutoon day daal di juddu kon yàlla na yàlla barkeel mu mel ni bokkoon na ci sama laajit ma euh, laajoon la ndeem euh, ndeem euh, ci bunt bi ñu nekkoon mu jëm ci gis yàlla ci biir axlu tasawuf ñenn ci tasawuf nee nan ah, dañ koy gis ñii ne duñ ko gis kon dafay yell xakasaayikun ñi koy saxal ak ñi koy dàq buñ dajee eh, kenn ku ci nekk mën ci indi xakasaayikun eh, leeralam te teg ko lekk ci laayante biir mu mel ni lekk eh, sa biiri kàddu dégg naa ngay wax ni ngay jëmmal ñi jëmmal yàlla ci mbir yi mu mel ni dégg na dégg nañ bopp xakka saay kun euh, mu axi xoona bu mag boobu euh, ndeem man mu axi xoona laa ko def euh, muy xalaaj ca kàddoom gu siiw googu mu waxoon ni ah manto bii déy yàllaa ko feese dell mm-hmm. déy mu mel ni kon moom dafa weesoo woon jëmmal yàlla ci mbiri waaye moom dafa jëmmoo woon yàlla ci boppam ba tax mu wax ni manto bi déy yàllaa ko feese dell déy te booba kenn solowul manto bi ku dul moom euh, mu mel ni bëggoon naa laa in bëggoon naa nga indil sa déggin ci kàddu élage googu ndax danga koy boole ci tasawuf wala danga koy génne ci tasawuf euh, ak it sa gis-gis euh, sang yaaram ci ba ko jot gi maye ci waxam jooju mu wax ni mantu bi yàllaa ko feese dell déy weesu jëmmal yàlla ci mbir yi sax waaye dafa jëmmal yàlla ci boppam euh, bëggoon naa tamit nga indil ma ci sa leeral ci kàddu ko xalaat googu ndax danga koy boole ci tasawu wala dangay ngay dàq xakka saayikun euh, loon ci indil ci leeral sang yaaram jërëjëf euh, sang bi manto ci waxu xalaaj mooy sel yéere rek yéere la rek yàlla nag moo wàccee ne huwa allazi anzala yu war yuwaari sawatikum yàlla moom moo leen may li ngeen di sol muy ay yére yooyu nag mooy yére yu ñuy sol ñun ñëpp kenn ku nekk boo xëyee dangay sol ay yére pour sutura say cër am na beneen yére boo xam ne nag yére maanawi la yàlla wàcce na ko mu ne wa libaasu taqwa collug ragal yàlla mu ne zaalika xayrun booboo gën xalaaj bu waxee ne manto bi yàlla dégg la fees wala lu daan wax ne wa ma fi jucbati ilallah lépp li nekk ci man dafa fees tel ak yàlla loolu tekkiwul ne def na leen gis naa yàlla maanaam maanawiyaat tajalliyaat ilaahiya leeru yàlla def ko dugg rek comme ni mu duggawul yenni moroomam yu mu dëkkaloon nga xam ne duñ jàmm yàlla nit ki boo jaamu yàlla yàlla di jox yere bo hamne man yere yere yere braggal yalal nga boole ko yere bi nga xamne moy bila tayor bi ñawal eh, lool rek moy waxu xalaaj moy eh, yere yalla bi nga xamne moy yere braggal yalla diko jaamu be leer bi dugg ko be fees del waaye loolu tekkiwul dafa ne man gis naa yàlla déedéet mbir mi noonu dong lay dem kon yàlla moo wax ci alquran ne dina leen leen sol yére yoo xam ne yére raggal yàlla lay doon moo gën nag yére yi nga xam ne moom la ñuy sol di dox ci mbedd mi pour nit ñi ko gis ne rafet na xoolal nag même boo sol loon yére yooyu boo gënee ci mbedd mi dañu ñu ne kii dof la su ko demee nag c'est obligatoire nga sol ko boo demee nag bi dépassé yére saaxir yi nga dal di dugg ci jaamu yàlla ba mu solal la yére boo xam ne mantoo ragal yàlla la loolu dafa am solo eh, jol googu maanaam yaat la kon loolu rek mooy li nga xam ne moo nekk ci mbiru xalaaj aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ taalibu loo maa ngi lay nuyuwaat te di la siyaaraat bu baax di la jaajëfalaat te di la ndokkelaat bu baax a baax a baax wax yàlla maa ngi topp say uje bu baax di ci sa xam bu baax a baax a baax waaye xanaa rek am benn gendeeku tuuti rek mu mel ni fan yee ci ginnaaw bu dul ñaari fan di ñetti fan dégg na nga wax ne mos nga sol sa dàll dem kawlak doon gëstu faydu Cheikh Ibrahim Niass man nag wax dëgg yàlla ni may déggee sa wax xam nga tawxiidu takallum dafa am tawxiidu taxarruf am jàng jekku langaasu arab mën a firi bokkut ak xam baatinu alquran masalan ñu bare bare borom xam-xam yu bare mën nañoo firi alquran waaye nag baatinu alquran moom lañu amut loolu moom dama koy nemmeeku ci borom xam-xam yu bare bare nga xam ne firi moom mën nañ ko nu ne mën nañ koo taawile waaye boo déglu dëgg dëgg dëgg te xam dara ci yàlla da xam ne kii moom wax dëgg yàlla yëf yi dégg la ci am waaye amagu ci ak xam euh, nag comme keppaar gi day keppaaru ñu ne tasawuf ak chiang bu ñu ñëwatee bay wax ci wàllu tasawuf maa ngi sàkko rek ñuy fas yéene di wax lu leer ci xel nit ñi lu ñuy mën a taataan ndax man aaya jii ma dégg nga firi euh, man gisewuma ko noonu yu waare saw aatikum wala isan wali baa sa taqwa man déggewuma ko noonu euh, xam nga yu waare saw aatikum wala isan wali baa sa taqwa jooju Euh, du du yëreb saaxir yëreb baatin la te tey bu ma la ko doon misaal dama naan la yu waari saw aatikum jooju wari san jooju dama naan la mooy derub doomu aadama bi nga xam ne moo taq ci aw yàppam euh, ndax kenn ku ne xam ne lëggi yëre yii nit ñi sol <coughs> yàlla lëggi ko nit ñee ko lëggee xëy na ma naam xel mi ko nit ñu liggéey yàlla lañ ko jox waaye du yàlla moo wàcci rabbu ab yére déedéet <coughs> xam naa ne daal dafa am wet goo xam ne kuñ ca laaj te yàlla dogal amoo ca xam-xam sàmm ak màndu gu ma sëkk bum tax bum boo amee bu amee ak sàmm moom ma ñu laaj ci loo xamee lii ak yàlla mi ngi ci rek na wax ne Euh, lii ñu ma laaj daal wax dëgg yàlla gag naa ci waaye dafa am loo xam ne ku koy topp di ko détaillé te ña ngay waxal di boromi xam xel euh, yër it aslëf euh, danañ dem ba xam ne kii kat li ñu ko laaj amu ci xam-xam waaye taxu daal mu nangoo nangoo wax ne awuma ci xam-xam maanaam xon naa ko fi jamono yee ci ginnaaw waaye ma di ko waxaat te suuf moom du lu ñuy làmbatu faw dañ ci yar nit ki mu door koo mën a xam mën a firi nag taxuta mën a xam tasawuf tey ji baat bi ci saahir ni ko charia di firee ñooñ xaqiqa du ñu ko fire noonu firi saahir mu am rek maanaam firi baatin mi ngi ci biir te daa mel ni nag bu fekkee ne maa ngi taataan wax yi fii faral di jaar wax dëgg yàlla daal léeg damay gis ne li ëpp ci ñiy firi maanaam pirim saayir lañuy ñuy jëfandikoo waaye moom baatin moom daa mel ne duñu ko laal euh, te gaa yi li ma dégg ñuy laaj muy manto bi wax dëgg yàlla euh, bokkut ak manto saayir bi maa fi jubbati ilallah bi ko xalaaj di wax mooy léppi biiram ak léppi bitam xool na ko waaye gisul lenn du su borom tabaaraka wa taala nga xam ne moom leer na ko ne euh, li gaa yi waxoon ne moom moo wax ne anal xaq man maay dëgg te noonu la demee doomu aadama amul lenn lu yàlla sàkk doomu aadama amul lenn lu yàlla sàkk mu nekk ci kaw suuf nit war koo mën a teg bët lu dul feeñaan na ci biir jëmmi doomu aadama nu mu ci feeñee nag moo mat a lijjanti nag baatu laa ilaaha illallaah ku ko tëyee te sàgganewoo ko da dem ba kiiraay yooyu yëpp bu muri ko da xam ne kon lenn nekku fi lu dul lenn te lenn loolee da nga koy gisaat ci sa biir bopp ci sa bopp kon nag ñu ngi tuubal ñëpp rek waaw di wax ne daal képp ko fii waxate rek na nga waxee ci ak mandu bu dee kii wax ci charia na waxee ci ak mandu bu dee kii wax ci xaqiqa na waxee ci ak mandu rek ndax ñëpp xam-xam moom moo ñu yitteel te bu ñu sa sañoon kuy waxate wax lu leer naññ loo xam ne maanaam nit ñi duñ koo sikki sàkk te la ngay wax nit ñi dañ koy mën a dégg barakallahu fiikum jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum salaamaaleykum mbokk soufisme ak chiisme ñu leen nuyu di leen ziar ziar sëñ Alaaji ak sëñ Saaliw ak sëñ Safa ñu jaar waaw mais sëñ alaaji sëñ Cheikh Talibé li may expliqué bi li waa wax noonu ci yére boobu xalaat ji waxoon sama yére bi fees dal yàlla ba mu wax ni moom libaasu taqwa boobu nekkul ni ni mu ko ni mu ko firee man li tax ma xaw a d'accord ci moom parce que ma yàlla am na fu muy wax ni jigéen ñi seen jigéen ñi ay ay couverture lañ ci yéen libaasun lahunna waaw li nga libaasun lakum wal wal waaw dama naan seen gerteelu euh, mot aay bi mais dafa ne jigéen ñi seeni i couverture la yéen it seen i seen i couverture la te baatu libaasu la fa la fa la fa la fa jëfandikoo quoi libaasun lakum ay seen i càngaay lañ yéen it noonu moo tax ma jàpp ne baat boobu ni mu ko ni mu koy li mu ko leeral noonu ci suñu xel war nañ ko mën a déggee war nañ war noonu lañ ko man noonu laa ko mën a pour ma li mu wax noonu laa ko mën a déggee daal parce que bon yére yi yére yi nit moo fabriqué yére yi quoi nit moo fabriqué yére pak lalu loolu tax ma jàpp loolu daal bu fekkente ne ini may wax ne day delluwaat li day delluwaat ci alxuraan rek comme moom ci alxuraan la jëfandikoo ba tontu loolu quoi moo tax sama eh, ni jigéen ñi ak jigéen ñi seen i càngaay la yéen itam seen i